regardez la télévision Teranga Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. En prélude du Magal de Porohan 2023, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Hemes Ngomgay, a fait le déplacement dans la ville sainte et est revenu sur le dispositif sanitaire mis en place pour un bon déroulement du Magal le projet d'appui à la gouvernance pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables vient d'être lancé dans la région de Saint-Louis dans un contexte de contribution à l'ODD 8 à travers un renforcement de l'insertion socio-économique des, des, publics vulnérables. C'est un prélude à l'organisation du foyer de l'école Balamoussa. Le corps professoral et les élèves se sont engagés dans la lutte contre les ordures dans leurs établissements. Les détails dans ce journal. L'actualité internationale mettra un terme à cette édition. C'est la fin des titres. Reste avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu moo jël waxtu wi ñeel xibaaru mbarax li gën a fës ñu doore ko ak ponk yi yu màggal poroxaan jëwriñ ji yore wàllum wérgu yaram di Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal na teew foofe ca dëkk bu sell boobee indi leen ay jumtukaay ñu wutali ca diwaanu gu foofee nag réseau national bu jigéen ña daal dinañ mer ba futtu def ab marche ngir laajte seeni droit waaye it ñu boole leen ci xëyu ndaw ya dinañ wax it ca lekkool Bala Moussa foofee ca Sédhiou ndongo ya nag daal dinañ tàmbali seen foyer euh, xeex daal di xeexal lépp luy salte foofu ca daara joojee ñaareelu pàcc xibaar yi nag dina ñeel xibaaru biti réew ñu daal ci ànd ak Umul Xayri Cissé mbokk yi loolu mooy di gën a fës bu ngeen taaxiloo as tuut ñu faram fàcceel leen ko. En prélude du Magal de Porohan 2023, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Hemes Ngomiaï, a fait le déplacement dans la ville sainte. Reçu par le calife général des Mourites, le ministre est revenu sur le dispositif sanitaire mis en place pour un bon déroulement du Magal qui rassemble des milliers de fidèles. Elle est au micro de Falusila, nous l'écoutons. Nous sommes là ce matin pour euh, évaluer les dispositifs sanitaires mis en place euh, pour la couverture du Magal euh, national de Porokhan. Ceci est extrêmement important parce qu'il s'agit d'un rassemblement humain important où nous craignons parfois la transmission de maladies, nous craignons également des accidents domestiques euh, c'est pourquoi il y a euh, un important dispositif en amont, un dispositif de prévention avec le service national d'hygiène, avec ses démembrements au niveau régional et au niveau départemental. Euh, ces équipes vont surveiller et sont en train même de surveiller, je peux dire cela depuis plus d'une semaine, évaluer un peu, contrôler les denrées alimentaires, contrôler la consommation de l'eau, voir euh, est-ce que euh, ces eaux ou bien ces denrées alimentaires sont aptes à la consommation, faire des désinfections aussi bien au niveau des maisons, mais également au niveau des lieux de culte. Partout, il y aura donc euh, un rassemblement. Ça, c'est à titre préventif. Mais quand il y aura donc la maladie en tant que telle, aussi bien la maladie transmissible comme la maladie non transmissible, nous avons mis en place des postes médicaux avancés. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers des stratégies de proximité à cause également du rassemblement humain qui sera extrêmement important. Mais nous pensons aujourd'hui, avec les stratégies que nous mettons en place, avec la régulation du SAMU régional de Kaolak. Donc tout peut se régler, nous le pensons bien, au niveau donc euh, régional. Il y a également un apport important en, en médicaments et jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Teranga Sénégal ci biir xibaar yi ci yu màggal poroxaan jëwriñ ju yore wàllum wér-gu-yaram di mari xemes Ngom Ndiaye daal dina teew foofee ca dëkk bu sell ba xalif general bu murit yi dal dina dikkaat ki dispositif sanitaire ya ñu fa indi ngir ñu mën a màggal ci jàmm ñu teewlu Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci micro wu Fallou Galasilla li ñu indi fii tey màggal gi moom moo ko waral wax naa ko sànq monsieur ne ko boo jàppee nii comme ni nga ko waxee ay douze mille personnes mais bu màggal gi jotee kenn du mën a natt doomu aadama yi nga xamante ne ñëw nañ fi te loolu bu amee ñun santé secteur santé action sociale dañ ci war a dugal suñu loxo bu baax a baax a baax balaa xew-xew bi di ñëw mooy màggal gi gis nga moo tax service di d'hygiène dañoo ànd ak colonel bi gaa régional bi mu ngi liggéey département bi mais ñu gën leen a dooleel te ñoom itam monsieur le maire bi ñu fi fekk di ko nuyu di ko sant ak équipe municipale am yëpp ñoo xam nañ loolu ni mu demee loolu boo gisee ñu di ko def en premier mooy dañu bëgg fagaru ndax dinañ indi ambulance dinañ indi garab mais suñu sañoon feebar gaa du ñàkk waaye du bëri wala bu bëree itam bu amee itam du compliqué du am benn complication moo tax prévention bi dinañ xool ndox mi dañu xool dëkkuwaay yëpp ba nga xamante ne dañ fexe ba feebar du bëri médecin chef dañoo teg na ay postes médicaux avancés moy dañuy gëna fexé ba paj mi gëna ñong ci fi nga xamantene dafa jégué population yi ndax circulation bi dina dem no xamantene ne xëy na am na même bu bopam di metti wala bëtam du mëna a egsi ñun nag dañu koy fekki moy wax stratégie de proximité. fi jël nañ fi déjà décision ne lu toll ni internat am infirmerie koku mom dinañ leen dagal ay garab. lolu amna solo tek ko ci loxom ba nga xamantene ne dootuñu dépendre ci ci garabu magal gi. parce que ni mu wax bu màggal bi pour couverture sanitaire la te ku xam poroxaan xam ñooro xam ne dafa am ay dëkk yu ko wër te bu màggal gi jote xew-xew boobu kenn du ne du jógee beneen dëkk ñëw fii am na ñu jël avion ñëw fii te garab dañu jóglee ci Le réseau national des femmes engagées en marche dans les rues de la région de Kidougou réclame leurs droits mais aussi l'emploi des jeunes et des femmes. Sur ce, nous écoutons Astusaro, présidente du réseau des femmes engagées de Kidougou et Madame Niana présidente de Women Mining in Senegal au micro de Mamadou Sissé. Nous demandons un quota annuel de 2%. Pourquoi 2% Nous comme nous avons 0,0

les ressources naturelles appartiennent au peuple Mais les ressources naturelles le peuple est comme moi. waxuñu ne état comme Il y a une comme répression que y a dugg si gros village L'eau, la ñu bëgg et dakk ay infrastructures le président nous a promis des chemins de fer il nous a promis un meilleur aéroport digne de son nom nous demander au chef d'État, si chef d'état bi ñu koy demander may na ne reste milliards yi di de keesam na jéem a réaliser projet ak programme yooyu. leneen li ma ciy dolli gannaaw bi ma dëggalee li mu wax ba pare moom mooy tey la kañ 21 janvier lu ñu bëgg ci 21 janvier bii désormais à partir de de 2023 mu nekk une année nationale une journée nationale consacrée à la femme de Kédougou. consacrée consacrée à la femme orpailleur, consacré à la femme entrepreneure, consacré à la femme en entreprise, consacré à la femme, à toutes les femmes qui sont dans les communautés. Caravane bi ñu def Nous sol suñu musóor yu xonk sol orange sol suñu nous yu mauve parce que à ci nekk am couleur bu mu tant que lu ñu c'est l'article article 115 b matalewul ak politique publique tant que matalewul dox bi Inch'Allah at wu nek danañ ñu gis benen bi ci dess moy autonomisation économique des femmes Nous bëgg ñu prendre ko entièrement en compte ci budget yi budget yi collectivité yi di chaque année nous avons ay amna ay fonds yu ñëw amna ay fonds d'appui aux collectivités territoriales am ay fonds de péréquation Nous leen la bëgg mu am ci ay pourcentage yu am solo sank sama natango bi mi ngi 2 2 waaye doyuma ndax li bëgg ñun ñëpp ñu. réseau national bu jigéen ñi ca diwaanu Kédougou daal dinañ def ab marche laajte seeni droit waaye it ñu boole leen ci xëyu ndaw yi bokk na ci it promesse ñu leen jigoon diggoon ñu daal di koy def ñu teewlu Astou Sakho di njiitu boobule réseau ca Kédougou ak it madame Niana di njiitu Women Mining in Sénégal ci micro wu Mamadou Cissé foofu ca diwaanu Kédougou. nous demander un quota annuel de 2%. Pourquoi 2% Nous avons comme 0,0 nous nous demander 2 3 nous avons commencé pour 2 2 du du, nous voudrions le fonds minier nous avons 2 1 pour les jeunes et 1 pour les femmes. dañu Nous na chaque année ay milliards de ngi de biir de di dem au niveau international dañu article 25. dafa les ressources naturelles appartiennent au peuple manam les xam ngeen ressources naturelles peuple bee ko moom waxuñu ne état comme Bon du duggee biir du tey comme répression que yaa ngi dugg si benn gros village loolu la ñu bëgg mu et ay infrastructure la ñu bëgg le président nous a pour promis des chemins de fer il nous a promis un aéroport digne de son nom nous demander au chef kii si chef d'état bi ñu koy demander may na sa que milliards yi di dugg keesam na jéem réaliser projet ak programme yooyu leneen li ma dans dolli gannaaw bi ma dëggalee li wax ba pare mon mooy est la 21 janvier lu ñu bëgg 21 janvier bi. désormais à partir de de 2023 ku nekk danañ ñu gis autonomisation économique des femmes la ñu bëgg prendre entièrement en compte ci budget yi budget collectivité yi chaque année amna na ay fonds yuy ñëw am fonds d'appui aux collectivités territoriales amna na ay fonds de péréquation loolu la ñu mu am ci ay pourcentage yu am solo sànq sama naataango bi mi ngi naan 2 pour cent 2 pour cent baax na waaye doyuma ndax je vous l'annoncer en titre, le projet d'appui à la gouvernance pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables vient d'être lancé dans la région de Saint-Louis. Dans un contexte de contribution à l'ODD 8 à travers un renforcement dans l'insertion socio-économique des publics vulnérables et d'accompagner les acteurs locaux. Fatou Mokhtar Fall, adjointe au gouverneur, nous en dit plus au micro de Sophie Dramé. Euh, nous venons de lancer officiellement le projet euh, d'appui à la gouvernance institutionnelle, l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, le projet AGIS, l'initiative de l'ONG Le Partenariat, installé au Sénégal depuis très longtemps, en partenariat avec également l'Agence française de développement qui a alloué le bailleur principal à hauteur de 750 000 euros. Donc c'est un projet aujourd'hui très ambitieux qui se donne comme objectif d'améliorer la gouvernance institutionnelle de l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, d'accompagner également les acteurs locaux sur le développement de, la formation professionnelle, mais aussi d'accompagner et d'insérer 600 jeunes en l'espace de 3 ans à raison de 200 jeunes par an. Et tous les départements sont concernés à raison de 100 pour le département de Saint-Louis, 50 pour les départements de Dagana et de Bodor. Donc, euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui met le droit d'honneur sur là où vraiment l'ensemble des efforts qui ont été menés par l'État du Sénégal, il y a eu un petit manquement sur le dispositif d'accompagnement des personnes vulnérables. Donc, on a énormément de projets qui s'activent sur l'emploi et l'employabilité des jeunes sur cette problématique. Aujourd'hui, l'ONG, le partenariat avec ses, euh, ses différents partenaires se propose d'accompagner cette fois-ci les jeunes qui sont très vulnérables. Je pense à ceux qui sont en, en déperdition scolaire, à ceux également qui sont sortis de prison, aux mères, euh, mères euh, célibataires, ou également aux femmes qui sont sorties de prison. Donc aujourd'hui, on leur offre la possibilité de les former, de les accompagner et de les insérer projet nimble ci gouvernance ngir li di insertion socio-professionnelle Jaglel konit nit ñi nga ni seen loxo jotu seen ginnaw dal dinañ ko lancer fofé ci Saint-Louis jaarale ko ci renforcement insertion socio-économique Fat Mortar Fall di adjointe au gouvernement mo ngi addu ci micro Sophie Dramé pour euh, lancer officiellement projet bu ñu tuddee donc appui à la gouvernance de l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables Et ONG bu le partenariat am initiative bi ànd ko ak centre Jàppalante agence régionale de développement ak euh, ci euh, financement ou euh, agence française de développement un montant de 750 000 euros donc mu nek projet bu ama am solo ci kaw ndax état du Sénégal gis nañ def na effort yu bari bari, ci walum, ndaw il faut également si entrepreneuriat accompagnement des jeunes mais spécificité le fait que choisir euh, choisir situation vulnérabilité ay de choisir de dem jàng ci de jàng ak ak dañu nekkoon ci kasso génn am lu def ak célibataires ay doom ñu abandonné amuñu activité amuñu

ñu fexe ba ñu lëkkaloo ñoom ñëpp jëm benn yoon ko defee dañuy am li nga xamantene li moy ay résultats yu gëna efficient donc looloo waral tay ñu wax un projet d'appui à la gouvernance donc dina jappalé également les acteurs locaux donc je pense aux collectivités territoriales aux ensembles à l'ensemble également structures yi nga xamantene ñom ñoy liggéey ci walu xëyu ndaw jappalé leen bu ñu développer ay formations professionnelles à l'organisation du foyer de l'école Balamoussa de Sidiou, le corps professoral et les élèves se sont engagés dans la lutte contre les ordures dans leur établissement. Un acte noble si l'on en croit le proviseur du lycée Balamoussa, c'est un extrait d'Anna Senghor. Donc euh, euh, aujourd'hui c'est la journée d'investissement humain mais une journée qui a été décidée et proposée par euh, qui a été proposé par euh, le président du gouvernement scolaire. C'est-à-dire que le président du gouvernement scolaire a décidé avec sa nouvelle équipe qu'il a eu à nommer pour euh, au moins la première activité du gouvernement scolaire, ça devait être la propriété du lycée. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, mais aussi un, euh, un esprit sain dans un environnement sain. Et depuis des temps, chaque fois, des élèves ou des surveillants venaient me dire qu'il y a tel serpent, il y a un serpent qui est apparu du côté des classes de seconde, etc. Mais j'ai décidé avec le président du gouvernement scolaire pour pouvoir quand même procéder à la propriété du lycée, à un deuxième nettoyage du lycée, parce que le premier nettoyage a été fait avant la rentrée scolaire. Bien. Bon, euh, c'est on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme Apparemment, les élèves disaient qu'ils voyaient des serpents, les élèves, surtout de la seconde, parce qu'il y avait beaucoup d'herbes. Cause pour laquelle j'ai vu mes professeurs encadrés, j'en ai parlé avec eux, pour qu'on puisse initier les élèves, les sensibiliser, parce que on ne peut pas apprendre dans de telles conditions en concernant toutes les herbes. C'est pourquoi j'ai pris cette initiative avec les, les professeurs coordinateurs qui m'ont aidé à réussir cette journée. Cause pour laquelle aujourd'hui, je suis très content de mon premier activité surtout. L'environnement sain d'abord. Parce que l'école est notre deuxième maison. Ça doit être propre à chaque moment. Si l'école est propre, c'est grâce à nous. Bon, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, franchement, que je suis tellement content que vous voyez que la cour est propre aujourd'hui et on souhaite que ça continue comme ça. Parce qu'on ne peut pas partir sans l'aide des professeurs. Et les professeurs aussi ne peuvent pas partir sans nous. C'était juste cela. Difficile, parce que j'avais l'aide des professeurs. Les professeurs m'ont aidé à sensibiliser les élèves. Surtout, je remercie les professeurs, parce qu'ils ont sensibilisé les élèves, ils ont convaincu les élèves à venir massifier cette journée. comme ni leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ca Sédhiou ci wàccaayu foyer bu l'école Balla Moussa élève ak jàngalekat nañ soow soobu ci xeex ma mbalit ya nekk ca boobee daara proviseur bu lycée Balla Moussa euh, rafetlu na bile mbir ana Clémentine Senghor lañ ciy àndal ci biir xibaar yi. scolaire koo xam ne initiative bi moom la jóge mais bu mu amee xelaat boobu mu ne xaaral ma xool sama ma seeta euh, ma dem waxtaan ak sama euh, professeur encadreur yi. pour nous xool parce que nous ma séntu moom lycée bi dafa bëre ña té xam nga xalé yi fu ñu nekk euh, chaque fois surveillant ak élève les di ñëw dina surveillant gis neen jañ côté classe seconde yi moo bu mu ko heureusement comme on dit l'occasion fait le larron donc euh, mané ko d'accord le samedi prochain le samedi 21 nous allons procéder à on va réserver cette matinée à une matinée de jour euh, d'investissement humain communément appelée lu ñu wax set setal. quand tout cas du ma cours bi. en tout cas ñëpp ñoo kontaan parce que élèves yi jënd si nañ ñu ñëwoon defi cours vraiment simeeku nañ jël nañ jaasi jël nañ râteau jël nañ pelle jël nañ brouette pour setal seen école parce que ñoom ñoo moom école bi ñu ñu ngi fii parce que élèves yi ñoo fi nekk donc comme ñoom ñoo jël initiative ñu ne dañ bëgg a setal seen école man proviseur ak professeurs yi nekk fii si lycée dañ leen di gunge te maa ngi remercier professeurs yi xam ne professeur corps professoral bi yëpp ñoo teew di dugg si diggante si élèves yi di leen di di leen di pour ñu mën a teel a pare liggéey soo gisee ma choisir réunir leen ndax xam naa ni ñoom ñoo ma mën a buux ma ma atteindre objectif boobu na maanaam ñoom ñoo ma mën a buux ma am li ma bëgg yaa ngi comprendre ndax neen lu may école mooy école famille la deuxième famille la boo génnee kër ga école nga jëm école beneen monde la boo xamante ne mooy boole ñu bëri moo ñuy boole mooy boole ku am ki ak ku amul ki doo xam ku fi am doo xam chrétien bi ak musulman bi ñëpp dañuy doon benn ñëw encaissé journée bi ñu tënk journée bi comme gis ngeen tey école bi nu mel ak nu meloon sànq comme nu ma la ko waxee rek élèves bi dañuy toog classe ak surveillant yi ne gis nañ jaan surtout récemment des deux dernières journées moo tax ma gis samay professeur encadreur ne leen samedi incha allah bëgg naa ñu def ko ñoom tamit déggal nañ ma buux nañ ma si jàppale nañ ma si loon métti loon comme li ma lay wax rek ñoom ñoo ma jàppale parce que ñoom ñu ba ñu nekkee si biir classe yi gis naa ni sensibiliser nañ élèves yi convaincre nañ élèves yi ba. Merci Anna Senghor. Puis terminons cette édition hors de nos frontières en compagnie de Oumoul Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a confirmé lundi 23 janvier 2023 que les autorités locales ont demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai de mois. Le gouvernement burkinabé s'inspire-t-elle du Mali dans ses relations avec la France en novembre 2022, pour son premier déplacement à l'étranger, le président de la transition Ibrahim Traoré avait rencontré à Bamako son homologue malien, Assimi Koueta. L'actualité se poursuit au Pakistan. Mardi 24 janvier, dans la plupart des villes, un jour après une gigantesque panne survenue dans une grande partie de ce pays de 220 millions d'habitants. Pour ainsi terminer ces pages internationales en République démocratique du Congo, l'Est de la RDC, un nouveau emploi a des tueries. Au moins 24 civils ont été tués et une dizaine d'autres kidnappés. Dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Béni. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche 22 au lundi 23 janvier dans le village de Makongwe. C'était c'est tout pour cette page internationale. Merci comme ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ñaareelu pàcc xibaar yi day daal di ñeer xibaaru bitim réew ñu daal ci ànd ak Oumoul Khayri Cissé. xibaar yi bitim réew yi dinañ ko doree ci réew réewum Burkina Faso démb ci altine ji ñaar fukki fan ak ñett ci weeram janvier ci atum 2023 le porte-parole bu gouvernement bu Burkina Faso di firndeel ne rek ñoom yi tamit dañuy wax ne rek lépp li nga xam ne troupe française la maanaam armée bu France nañu daal di génn ci réew ma li ni mel waral sax ñuy laaj ndax nag waa Burkina Faso dañuy topp rek ci tànk Mali jëmale ci ñi nga ñoo nekk armée bu France ci fateli ci novembre ci atum 2022 le ki nga xam mo nekk mu transition di Ibrahima Traoré demoon rek Fofé, ci Bamako ngir nak jàkkaarloo ak ki nga xam moy Assimi bu réew Mali li mel waral sax ñuy laaj ndax nak ñi nga xam ñoo nekk wa Burkina Faso dañoo taxaw ci réew Mali ngir nak dak lepp luy armée France ci seen biir réew xibaari ci réew mi dinañ ci daal di

teewul dinañ ko jeexale ak république démocratique bu Congo waa république démocratique bu Congo nag ñoom jamono ji ñu ngi ci guddi gu bët setagul ndax nag ñii di rebelle yu ADF ñu nekk force démocratique alliée ñoom daal ña leen di bundoxataal ginnaaw bi ñu fàtte bakkan ci ab attaque bu amoon foofee ci village bu Makongwe ñaar fukk ak ñeent ci ay civil lañ fa daal di faat waaye tamit ci lu toll ci fukki doomu aadama ak lu teg lañu fa daal di kidnappé li ni mel nag mu ngi amoon ci bésub dimanche ñaar fukki fan ak ñaar japp bésu altiné ñaar fukki ak ñett ci wérum janvier mbokk yi li lañ leen andi andiloon ci xibaari bitim réew jërë ngeen jëf Merci Oumoul Khairi Sissé, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles aux autres programmes de la TSTV. Bonsoir. jërëjëf Adja Maimouna Thiam mbokk yi loolee moo buur xibaaru mbalax yi di leen jox dig daje ëllëg yeneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.